القرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي نحن الآن في مطار آه، بانجول آه، لاستقبال آه، بطلنا الشيخ عبد الله هنجاي الذي شارك في مسابقة الدولية للقرآن الكريم في المملكة السعودية ومعنا أحد من شيوخه الذين درسوه القرآن نسأله كيف كيف كيف كيف شارك الشيخ عبد الله هنجاي في هذه المسابقة القيمة الدولية هذه المرموقة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 الذي شارك في مسابقة ملك عبد العزيز الدولية في المملكة العربية السعودية ووفقه الله سبحانه وتعالى بالترتيب الثالث والحمد لله نحمد الله على ذلك آه، عبد الله نجاي طالب معروف درس عندنا في مدرسة دار أرقم للتحفيظ القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في سنتو الهاج وتقريبا أكمل حفظ القرآن قبل عشر, عشر سنوات تقريبا وما زال حفظه قوي ومتين لأنه ما زال يراجع القرآن ما زال يقرأ القرآن ما زال مع القرآن لذلك وفقه الله بهذه آه، النجاح وفي الحقيقة هو طالب مميز طالب مميز طالب يحب القرآن ويحترم مدرسيه أو المدرسين آه، الجميع الذين كان معهم في التحفيظ يحترمهم وكان من الطلاب المميزين في المدرسة بكونه لا آه، يستريح ليلا ولا نهارا دائما هو مع القرآن يراجع القرآن حتى آه، وفقه الله سبحانه وتعالى بحفظه وبعد أن حفظ القرآن التحق مدرسة أخرى مدرسة الشيخ مامون بي في آه، سمت الهاج نفسه برئاسة الشيخ بابكر كرمي وهناك يواصل دراسة بعض الكتب الفقهية مع التدريس آه، في نفس الوقت وعلى كل حال هو طالب مميز وكنا نتوقع منه مثل هذا لأنه دائما مع القرآن الكريم والحمد لله الذي وفقه بهذه الفوز والفوز لجميع غامبيا الحمد لله ما شاء الله وعلى هذا نسأل ما سر دار الأرقام لأن يعني كثير من المشاركين لهذه يعني مثل هذه المسابقات نرى أن الذين يأتون من من من من مدرسة دار الأرقام يعني تقريبا آه، يكونون يعني في الفوق يعني يكونون من من من من الفائزين ما سر دار الأرقام والله ليس في سر آه المثل هناك مثل عرفي وادي يقول سئل كيف تربيت أولادك حتى ساروا على ما انت تحب وعلى ما يحب الله سبحانه وتعالى الرجل هذا كان يقول كنت اقول لاولادي كل ما ما, ما, ما اي وقت ما دام تفعلون شيء وانا يعني يعني انهاكم عما تفعلون نعم قال بهذا هو نجح في اولاده وأننا ايضا دار ارقم نقول فقد هكذا آه، السر ليس الا تعب مع الاولاد يعني البداية معهم ترى كل شيء في الأساس الأساس إذا كان قويا كل ما يأتي بعده يكون قوي فدار أرقم سره فقر هو هذا تقوية آه، الأساسية آه، من بداية الحروف إلى درس وإلى المراجعة كل شيء يكون على على على, على شكل جيد فهذا تقريبا هو سر فقط ما شاء الله نعم هناك البعض يتساءلون كما قلت دائما مسابقة خارجية كثر ما يسافر الطلاب دار أرقم آه الحفظ مختلف يعني حفظ دار أرقم ربما يختلف مع الحفظ آه لبعض المراكز الأخرى ربما هذا هو السر في ذلك ولكن الحمد لله ما في أي سر إلا هذا فالمسابقة إذا جاءت في غامبيا ينادي المسابقة مثلا كيوسل آه، فعلوا مسابقة الوطنية وكذلك غامفن فعلوا مسابقة الوطنية كذلك منظمة الإغاثة يعني برئاسة الشيخ سابل هؤلاء فعلوا مسابقة فهذه المسابقات الذين جاءوا في الترتيب الأول والثاني والثالث إلى إلى الخامس هؤلاء يعني المجلس يجمع هؤلاء الحفظة ثم ينادون الكبار العلماء في غامبيا مثل الشيخ ندور والشيخ فني يأتون بالتصفية لهؤلاء فكل من نجح في هذه المسابقة هم الذين يمثلون الدولة فشيخ عبد الله انجاي شارك في هذه التصفيه ووفقه الله بان يسافر الى الى السعوديه وهناك ايضا وفقه الله بان حصل على الترتيب الثالث Euh, sëriñ bi xam naa dañuy jéggalu ñu ngi jël sa waxtu lu bëri waaye dafa mel ni ñi nga xamante ne ñooy mutaabaa ñu si gën a bëri euh, dégguñu arab hmm. moo tax lu ñuy laaj lu ñuy laajte woon si euh, lugal arabiya dañ koy laaj si olof hmm. maanaam Cheikh Abdoulaye Ndiaye mi nga xamante ne moo bokk si jongante bi nga xamante ne moo xewoon fële si mamlaka saoudiya bëgg nañu xam Abdoulaye Ndiaye naka lañ ko tànnee ak lu tax moom moom lañ tànn maanaam lu tax ñu tànn ko Ah, ñu ngi sant yàlla bu baax di julli seen bi sallallahu alayhi wa sallam di nayu képp koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloo ñun di ñu seetaan si jamono bi di nuyu itam képp koo xam ne yaa ngi si jotaa bi tey si bés bu màgg bi nga xam ne li ñuy fi dajale duhul leen lu dul alquranul karim li ñuy fi dajale duhul leen lu dul Gambia Gambia la yàlla may ndam ah, ñun ñëpp ñu ñu dajee fi tey anu ah, ma ko waxee rek Abdoulaye nag Ndiaye xale la boo xam ne ci daara ji la mokkale muy daar arkam si suñu alxaaj ba mu mokkalee ak léegi daanaka ëpp na fukki at gannaaw bu mokkalee dem na si euh, madrasa Cheikh Mamour Mbaye foofu la ne di jàng xam-xam di jàngale waaye itam mu ngi dem school at the same time alhamdulilah boo xam ne lii nekkul loo xamante ni lu ñu bett la ci moom ndax euh, ku yaru la ku baax la ku bugg alquran la te ku respect la tam ñu ko doon jàngal yii nag soo ko dajalee moom soo buggee dara daal euh, si mbaax yàlla daal yàlla mun na la koo may alhamdulilah moo tax yàlla may ko ndam lii Euh, nu ma ko waxee rek musaabaqa yi ni ñu koy defee euh, mooy ne euh, léegoo-léeg ñu def musaabaqa national musaabaqa ci réew mi fii lay kom mu ngi mel ni sel defoon nañ musaabaqa bu yàggul boo xam ne ñun bokk nañ suñu àndoon ak ñoom dem si région si yu nekk région bu nekk ñu def fa musaabaqa tànn fa fos ak seconde ñu defa leen bi mu neexoon lool naka noonu gam GAMFEM defoon nañ musaabaqa ñoom tam noonu lañ ko defee woon dem si région si yëpp buñ paree ñu tànn foos ak seconde ñu ñëw ñu def final bi fii soo final boobu nag bu ñu ko defee ñi nga xam ne ñoo génne foos ak seconde taat super islamique council mi majlis al aala ñooñu lañ di jël balaa ñoo owaati réew mi yëpp comme defoon nañ si réew mi yëpp ñu gis ne ñooñu ñoo nekk di bés ndax def nañ ci réew mi yëpp ñoom ñoo génn balaa ñoo aati réew mi yëpp nag te léegoo-léeg musaabaqa yi day ñëw fekk mu xat te comme ñii lañ jàppoon si réew mi ne ñooy di bes balaa ñoo aat ñëpp ñooñu la ñuy jël muy ñoom ten wala ñoom eleven wala twelve ñu dajale leen o borom xam yu mag ci wàllu alquran ñu defal leen tasfiya muy test boo xam ne ñoom ñooñu rek ñoo koy bokk su ko defee test boobu suñ ko defee nag ah, ku génn foos ñu ne kooku mooy dem Saudia exemple su dee ñaar la ñu jël ñaar Saudia ku jël taat ñu ne koku moy dem maghrib amna ko koo tay ci guddi la fi jógee ko dem maghrib ñu ko wax Aïcha Sow ah, moom si daara ji la nek ñu ngi ñaan yalla may ko ma sha allah amna kenen ko ñu wax mamin mamun job doomi imam Baram job la mom tam on 29 mu ngi dem fële nga xamanteni moy turke alhamdullilah gambe ñu ngi gol ci alquran bu baakha ba so nonu nak ñom nonu ñu tan ak abdullah Ndiaye mi demal gambe saoudia ñom nonu lañ leen tanne ñu dem nak def jongante ci nga xamanteni moy bitim rew macha allah alhamdulilah mu ngoog eh, xam naa benn laajte bi nga xamante xam naa nekkul sama laajte waaye laajte askan wi la mooy daarul arxam gis nañ ne eh, ñu ñu ñu am eh, ñu am maanaam ñu xam nu koy waxee secret leen wala mm. bëgg nañu xam lan mooy seen secret bi nga xamante ne moo tax musaabaqa yani dawliya wala xaarija yu bëri suñu demee dañuy faral di am dam lu tax ñu wax loolu nag dañ koy gis ñoom ñoom ñu koy laajte maanaam tasaulaad la ba si njëkk mooy Ahmad bu maanaam fan yi si gannaaw rek lañ gis ne demoon na تنزانيا jël fa tartib الثاني tey ñu gis Abdallahi Ndiaye dem yani mamlaka saoudia di musabaqa bu gën a am doole musabaqa bi nga xamante ne alamiya alamiya la maanaam adduna bi yëpp fay dajee moom nag mu jël fa tartib al thalith ñu bëgg a xam nag sirru boobu noonu bi nga xamante ne moo nekk si daara alxam lan mooy sirru bi waaw sirru bi day la waajo waxoon benn yarkat dañ ko waxoon noo def ba sa njaboot gi jub noo def ba sa njaboot gi jub mu ne leen ne dama leen ne fik yéen def maa ngi wax feeg yéen a def maa ngi wax suñ defee lu bon mu wow, ñu def lu bon mu wax su yàggee rek ñu tegu si yoon bu jub waaw loolu it bu dee lay laaj rek waaw anu, amu rek fa ne amul beneen sirr bu dul ne jàngalekat yi ñooy bëgg a rek yoon bi nga xamante ni gis ne moo mun a may xale alquran mayin gu yon yoon bulen lañu rek la jaar ak ñoom amul leen luñ ci yëra amul luñ ci tam khol bëti wayjur suma doom yàgg na fi wala yàggul fi ñun daal li nga xam ne mooy suñu système ñun moom la ñuy demee koo xamante ni bëgg nga sa doom mu mokk si alxam daal danga am pour xaar système boobu soo ko xaaree nag ah soo fa génne doo ko réccu de parce que Abdoulaye Ndiaye mi ñuy wax ni tey bu mokkalee alquran si daara a léegi fukki ëpp na fukki at te booba léegi ba mu génnee si daara ji ak léegi mun na juróomi at kon kooku ba mu gëjee si daara ji yàgg na waaye lu ko dimbale nag mooy mokkal bi nga xam ne moom la mokkaloon mu dëgër lool lu ko dimbale mooy gannaaw bu mokkale it bàyyiwul alquran dafa continuer di ko muraaja ndax alquran moom lool mooy loolu mooy tax mu sax yéen bi daf ne alquran soo ko bàyyi benn fan mu bàyyi la weer soo ko bàyyi weer mu bàyyi la at waaw moom dafa gaaw a rëcc lool kon téye ko mooy tax mu sax kon siru daar xam daal du len lu dul ne góorgóorlu daal bi nga xam ne comme dañoo jël kóllëre suñu digg seen diggante ñoom ak seen parents yi li nga xamante ni loolu mooy kóllëre bi daal mooy ñu mokkal loo xale yi mokkal bu rafet bu wér bu mucc ci ayib daanaka daal loolu mooy sirri bi moom. xam naa duñ la téye dañ lay bàyyi rek waaye benn laajte lañ lay laaj wala hmm. benn euh, maanaam dañ lay laajte sa xalaat euh, lan lan nga gis ne ya ak léegi nuñ amee euh, lu leen yàlla may si Quran. Hmm. lan ngay wax gouvernement bi lan ngay wax askan wi ngir ñu xool ñoom it ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñuy jàng Quran ngir ne. Gambie dañ koy faral di wax dafa mel ni ndey bu am ñaari doom la hmm. doom bi daf koy daf koy daf koy daf koy tette daf koy defal lépp lu mu soxla mm. waaye beneen doomam dafa mel ni jurul ko mm, euh, maanaam ñi nga xamante ñooy jàng lu dul alquran ñooy jàng lu dul diine lépp lu luñ soxla ñu ngi lañ koy defal waaye ñi nga xamante ne ñooy jàng diine di jàng quran dañu jàpp ne loolu mooy lu gën mm. te lépp lu ñu soxla si xam-xam mën nañ ko fekk si jàngam jàngam lislaam lu tax ñu ihmal leen lu tax joxuñ leen seen gëdd lan ngay jox ban message ngay jox gouvernement bi waaye lan jox ci Gambien yi waaw sant yàlla rek nu ma ko waxee woon rek last time mooy ne ñu ngi leen di sant foos njëkka ñoom government bi ak Gambie yëpp di leen gërëm si kaw ne ah, su ñu defalul sax xëñ na lu teg tegu teguwul waaye mais nañu jàmm joo xam ne ñu ngi amee suñuy daara di liggéey te amuñ benn problème loolu sant yàlla la am na réew yoo xam ne tey soo demee borom daara yi mënuñoo joxe seen message ni ñu ko bëggee because lu ko waral mooy amuñ jàmm si seen réew kon ñun suñu amee jàmm suñu réew te ñoom ñu jiite réew mi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ci loolu naan yàlla dëgëral leen ñaareel bi mooy noo ko waxee daara yi dañoo soxla ndimbal amuñu ndimbal su suñu waxantee dëgg rek mooy na daara yi dañoo soxla ndimbal euh, dafa mel ni noo ko waxee ku ma am ndey ku ma amul ndey la Euh, wax naa ko si interview bu passé ma ne tey soo xoolee tey xale yi soo loon laajoon tey sa doom nga ne ko dama laa yóbbu school wala dama laa yóbbu daara daf naa ne papa yóbbu ma school lu tax mooy ne lépp loo xamante ni dañ koy soxla rek ndaw xale daf koy soxla si school wala xale daf koy soxla en général dañ koy am si school ya waaw dañuy am sangu ba set sol lu rafet am seen lantu mu doy am seen baag yu rafet suñu demee toog yu baax la ñuy toog amuñ benn jafe-jafe yi su fekkoon ne itte bi nga xamante ni moom lañ jox school yi dañ ko jox daara yi konoon xale yi daara yi la ñuy gën a bëgg ndax daara fa la njëriñ ne waaye nag itte bi moo des ba tax na ñu ngi leen di gën a ñaax ñu gën a góorgóorlu bàyyi xel lool li nga xamante ni mooy daara yi lépp loo xam ne daal ñu ngi koy defal school yi séntu nañ ñu defal daara yi lu ko raw ndax yonent bi sallallahu alayhi wax ne nee na yàlla léegoo-léeg day toog ba bugg a wàccee meram ci kaw adduna ngir mooy yàlla yi nga xamante ni mooy xew ci jamono xoolal rek fan yi dëkk bi nu mu mel mooy yàlla yu bari yooyu di xew nag su yàlla meree ba bugg a wàccee mbugalam ngir faagaagal adduna su xoolee ndaw yi di jàng alquran rek maram dal di féex kon ndekete ñun suñu adduna soo gisee mu taxaw ba tey confortable ndaw yii di jàng alquran la kon ñooñu suñu leen sàgganee ah borom bi subhanahu wa taala dinañu ko laaj kon ñu ngi leen di ñaan ñu ba gestu daara yi borom alal ñu gëstu daara yi ndax gis nga nit loo fi am lu mu bëri bëri yàgg-yàgg da ngay dem bàyyi ko fi rek kon yent bi dafa waxoon lu mu moom ci alalam mooy lum lekk ba mu res yére bi nga sol mooy bi nga moom mooy yére bi nga sol ba mu xar nga sànni ko si sën ba waaye yére bii nga sol tey man mbim mii ma sol taxaw tey su ma deewoon tey suba ñu fur ko bam mu set keneen doon ko xaalis ba ma def si banque ba suma ma deewoon ëllëg keneen moo koy doon kon tee nga see defal yàlla balaa dee di ñëw mu nekk contre boo xam ne daf lay xaaris sa bàmmeel kon loolu waaye Gambien si yëpp mhm. ah, ñu ngi sant di gërëm Dia Oyel si njiiti ah, sista suñu yaay Adama Dia mhm. ah, lépp loo xamante ni aju na ci wàllu tertu bi moom moo ko taxaw lu ñu lu ñu fay télé mhm. lu ñu fay moto yi ndox yi lépp loo xamante ni lu ñu aajo la fii rek ci gàttal daal moom mooy ki nga xam ne moo ko taxaw si fekkoo ne borom alali Gambie yëpp def nañu moom kono dégg a daare du ñu jooy Abdoulaye Ndiaye mii tey su fekkoo ne beneen dam la indi konoon tey lu nekk mën na ko am ci réew mi waaye ñu ngi séntu loolu si si président bi nag war naa mën a am kër war nañ ko mën a ay millions war nañ ko mën a may ay oto ndax gis neen ñu ko defal ñeneen ñoo xamante ne Abdoulaye Ndiaye lim indi ñoom indi wuñ loola kon loolu daal ah, ñu ngo ñu ngay eggale message bi si moom ak keneen ku mel ni moom daal ñu fexe bàyyi xel daara yi bàyyi xel ndongo yi ndax gannaaw yàlla daal ñom ño fi nekkal yàlla ci kaw suuf fi subhanahu wa taala diam contenté lol ci mbégte mi nga xamné ci alquranul karim la jógee nga xamné ne alquranul karim téere yi yàlla wàcc yëpp moy bi ci mujj wàcc waye mo ci gën itam te yàlla subhanahu wa taala mo waxon ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ma waxoon ne man maay ki wàcc alquran te maa koy wat euh, kon nag wax juuju rek lañuy ñuy fàtte wax dëgg yàlla tey bu demee ba réew mi nga xam ne ci la alquranul karim wàccoon yàlla def doomu Gambia dem fa jël ndam lii loolu danañu kontaan loo trop waaye nag dañ koy jàppee rek ne maanaam ku nekk ci lu baax la rek lii fekk la ci daal loolu lañ koy jàppee rek. dañuy gëna takkay war rek te jema gëna gën a rafetal yéene mooy la sëriñ Aliou Sakho rahimahullahu taala doon wax rek ne ka annaha fi suluukil xayri mubtadaun wa bil maunati yuta ba'du bil khabari manam jàppal ni ci lu bax nga nek rek kon li ñi jox la ni jàppal ne mubtada la rek te mubtada dafa soxla xabar manam mbir muñ la indil mu tambal la te soxla ne leneen luy ñëw mo tax kon li liñ dañ ci kontaan trop waye dañ koy dénk di dénk xale yi ñiy jéem a rafetal seen yéene lool ndax innamal amalu binniyaati wa innama li kulli imri'in na wa jëf yëpp mu ngi ci yéene te lépp lu nit yéene rek lool la waaye tey bu fekkoon sa bët yi fii rek nga ko tegit foofu rek lay doon waaye nag bu fekkee da nga rafetal yéene lu baax lu nekk mën na la caa fekk te moom mii nga xam ne tey am na ndam lii yaakaar naa ne daara ji yéene nañ ko ko trop ndax bi mu taqarujee daarul arqam ñëw ci daara ji ak léegi lu yàgg la ndax def na fii fi Omar ibnul Xattaab ñaari at taqaruj fa nekk ci English school waaye ku ne xam na ne liggéey bu rëy la am ci daara ji boole ko ak dégg ndigal lool. man mun naa wax ne man ak sama bopp tey suñuy bët mosul jàkkarloo jàpp na ne fu ñuy xoolante rek mu sëgg ala kulli li ñu koy ñaanal mooy lii yàlla na ko jig lii yàlla na ko jig yàlla na nekk borom xam-xam bu mag xam-xam boo xam ne day ànd ak barke. wax dëgg yàlla kon euh, dañ ci kontaan kontaan koo ko xam ne mënuñ ko wax sax dañuy gërëm it way yi nga xam ne ñu ko bàyyee maanaam jox lañ xale ba noppi bàyyee la ko gëstuwuñ ci dara noonu la neex rek nga doxalee ko ala kulli loolu dañ ci occasionné wu itam di dénk yeneen way jur yi saa bu ñu amee xale dénk ko nit nañ ko bàyyee nit ki rek ala kulli kon ñu ngi kontaan kontaan di ko xam ne moom bu amee fu mu tàmbalee it fu mu yem moom amu ko daal lan ngay wax ñi nga xam waaw waajur yi nga xam na ñoo yóbbu seen doom yi ci daara yi euh, li ma leen di dénk rek mooy ñoom ñoo ku ci jël sa doom di ko yóbbu ci daara li ma lay njëkk njëkk dénk mooy na nga rafetal yéene daal maanaam yéene ji na nekk ne xale bi na jàng téere bi yàlla bi mokkal ko waaye na dëñ ci réer itam ndax ñàkk rafetal yéene danay gàllankoor daal danay gàllankoor lu bëri bëri bëri loolu moom moom lay njëkk dénk waajur yi moom ñoom ñëpp nañuy rafetal yéene te buñ óoloo nit ba dénk seen doom nañuy nangu lam leen di wax ñi nga xam ne ñooy nguur gi nag nga xam ne ndam ñu indi ne ndamam Gàmbi nag dafa indi nekk daaru Arxam wala daara Babacar Mbaye rek dafa indi laa ngi dénk ñi nga xam ñoo nekk nguur gi ak seen taxawaay ci daara yi. waaw li may li may dénk nguur gi mooy ndam lii ndam la lu xam ne tey ndamal Gàmbi yàlla waaye mën nañu wax sax ne tey ndamal islaam yëpp la su boobaa nag nguur gi lii war nañ koo ndamoo ndax tey ku ne xam na ne réew mi alquranul karim wàcc ñi dajee fa. lu mat téeméeri réew ak lu teg ñi dajee fu wax dëgg yàlla su yàlla mayee sa doomi réew mu jël ko loolu war nga koo ndamoo ba ñëpp xam ko teg ki nga xam ne moo demoon tey wala ñi demoon dëgg-dëgg war nañ leen a defal lu nekk te war nañu seddal seen xoli yi bu baax a baax baax ndax tey yóbbu na turu Gambia fu rëy rëy rëy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 فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير تكبير تكبير الله أكبر تكبير تكبير مقاتلة مقاتلة شيخ هذا من باش السلام عليكم ñu ngi jégalu bu baax depuis ñaari fan la fi waroon a egsi am bu mu dafa sonn lool moo tax dañ bëgg ñu may ko mu firi gars interview ko rek please ñu dem suñ génnee dinañ taxaw si biti ñu julli moom lañ bëgg a mu jiite ñu ñu julli timis fii ñu jógee fa nag jëmale daara ja allah kon media yi ñu ngi leen di xaar ngeen interview ko bisimilah. Ah? mu gàtta rek. Abdallah. Mhm. Mhm. Ah, bu ñu sant yàlla la si Yonent bi sallallahu alayhi wa di len gërëm yi ñëpp tamit ci téwa bi fi nii parce que dañ luñu jëk gëm rek moy teew fi ngir Abdoulaye Ndiaye way da ngeen fi téw ngir Gambia la way da ngeen fi téw ngir ne wax Yalla bi la subhanahu wa taala kon contenté bobu lañ jëk am bu ñuy dem Yalla bu dogal tam bu ñu ñu am li mu nekkaa benen contenté bu rëy bo xamné ne nañu torop parce que bu ñuy dem sa bu ñuy oote Abdoulaye Ndiaye da fekk na dama tardé won dal tardé na ma tok dégg na Abdoulaye Ndiaye si la bokk si laa dem ñii la demee woon waaye na nekkoon lu nga xam ne euh, mbetteel mbetteel boo xam ne dañ ci kontaan lool dëgg yàlla. Hmm. waaw loolu sa beneen sant yàlla parce que loolu fekk na wax na ko bu yàgg yàlla nee na wala qad yassarna alquran li dhikri fa hal min muddakir mu ne nit dina jàng alquran ba mokkal ko foo laaj mu tëri benn aaya soo ko ne firil du firi. kon nekkul mbi waxi araab la boo xam ne keneen ku du moom du ko mën kon loolu tam beneen sant yàlla rek. Hmm. mooy ñu gën a góorgóorlu sàkku xam-xam ak sellal yii mhm. ñaari daal yaakaar naa suñ suñ si góor lépp lépp xaj na si biiram daal sàkku xam-xam ak sellal yii nii. Mhm. incha allah. macha allah ok. ñu ngi nuyu waa airport bi fii eh, bu mu ñëwee direct amuñu woon information waaye direct dañ ko yóbbu si VIP bi pour ñu xam ne tam nguur bi taxaw nañ si bu mu ñëwee rangut dafa yem direct si VIP bi te am na kilifa yu fa nekkoon sax waaye dañ bàyyi ñooñu ñu toppatoo ko incha allah moo tax sax mu gaawee nii kon tamit nguur bi ñu ngi leen a gërëm si seen taxawaay bu rafet tamit yónnee nañu police boo xam ne escorte buy escorte xale bi ba kiram ñaare bi jaa ewel tamit ak kilifa yi yëpp def nañu seen doole incha allah ngir Adama Jammeh sol xale bi lu mu sol nii pour ñëpp xamee ko noonu jazakumullahu xayran ak ay kilifaam yëpp ñu ngi nuyu ñëpp yow yaa may bégloo di ma jox ak dal yaa may bégloo di ma jox ak dal kulagam dina am kulagam dina am maa si kula bañ moo mën dana law wax nañu tey wax nañu tey ji wax nañu démb wax nañu xadalay yow yaa am boos wax nañu xadalay yow yaa am boos ما شاء الله أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شهور ويفيض في قلبي سلام اسلمت روحي لله Boy, dali mo lang tanga. Lang ko lang, lang ko lang. Boy, lingan na, tugo, tugo. Wadi pa, wadi pa. Ana. पर معنا هود أسلمت مرة بلينو بيقول معنا لغاية أبروله قد زال لي أغلى طريق وهو الشفيع يوم حفلنا مرحبا بكم يا ضيوفنا مرحبا بكم يوم حفلنا مرحبا بكم يا ضيوفنا مرحبا بكم يوم حفلنا في حضوركم فرحة لنا في اجتماعكم طاب يومنا في حضوركم فرحة لنا في اجتماعكم طاب يومنا يا ضيوفنا يا ضيوفنا يا ضيوفنا يا ضيوفنا يا ضيوفنا يا ضيوفنا يا ضيوفنا يا ضيوفنا مرحبا بكم يا ضيوفنا مرحبا بكم يوم حفلنا مرحبا بكم يا ضيوفنا مرحبا بكم يوم حفلنا بحضوركم فرحة لنا في اجتماعكم طاب يمنا في حضوركم فرحة لنا في اجتماعكم طاب يمنا يا ضيوفنا يا ضيوفنا يا ضيوفنا يا يا ضيوفنا يا ضيوفنا يا ضيوفنا يا ضيوفنا نين ديمبال لا كوني اذا كان عون الله للمرء قادما تهيا له من كل شعب مراده والا يكن عون من الله للفتى فاول ما يجي عليه الجهاد من ديمبال يالا فو اندك جامبي ديمبال يالا فو اندك جامبي لب بولم كون ني موي يالا يا يالا واي نينا بو ديمبال يالا اندك جامبي نيت كي نوي نك نك نك سي موي كورغو داغي كورغو تا دارو سو سو ني غي غيرمي نون waa daara ji yëpp nag ndax xam ngeen ne liggéey bi kenn spécial oustaz dara ko oustaz Niass Bassirou Seck seen jàng ak ñoom Abdoulaye Mohamed Biram Cissé ak ñi ñu àndal yëpp wallaay ñu ngi leen di gërëm ngërmande loo xam ne yàlla moo xam ndax def nañ ci daara ji loo xam ne man ñi moom kon maa ngi leen di sant leen gërëm bu baax a baax a baax di sant yi nga xam ne ñoom la ma yàlla booleel lool di leen ñaanal ngërmande yàlla di ñaan yàlla barkeel seen jëmm ndax xam nañ ne ñoom soxna yi ñoo ànd ak xale yi ci liggéey liggéey daara ñëpp te mosuñ ko jàmbal daal mosuñ ko jàmbal def nañ taalib yi ñu nekk ci seen i doom kon dëgg-dëgg ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen wér may leen fan barkeel seen njaboot lool nag di gërëm nag waa daara ji yëpp waa daara ji yëpp ñu leen di gërëm wax dëgg yàlla xam nañ jàpp gi jàpp ci liggéey bi ba liggéeyu daara ji mën a mel nii ñi ngi gërëm tey tey mbootaay bi nga xam ne moom lañ tuddee al ustatul murabituun mu nekk di mbootaay boo xam ne moo mooy mbootaayu daara ji mbootaay boobu tey ñoom mun nañu waxee daal ñoom ñoo yor daara ji daal ndax kenn ku nekk xam ne tey daara ji daara ji waxtu bu la tuut loo xam ne dañoo fas yéene ñun suñu génnee ak nu ñu jaay ko dañoo bëgg mu continuer ba ñu te loolu mbooloo ko mën a yore loolu kenn mënu ko yor moo taxoon mbootaay boobu ñu ngi leen di gërëm ci seen taxawaay lool lool lool lool keroog rek maa ngi koy nettali xale yi fii may leen moto bi mos nañ am problème benn taalen bu nekk ci daara yi moo tànk yëpp moo ko tegee ñu guddaat kon mbootaay boobu spécial ñi ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di leen sant di leen ñaanal jàmm wax dëgg yàlla kontante man trop mu kontante te bu yàggee dañuy guddal ko kon fi ñuy jeexalee rek wax dëgg yàlla di feeñal suñu ngërmande ci Ablaye Ndiaye mii ak ay mbokkam te ku xam ne ne maag moom yàgg nañ tey mu ngay jàngale ci daara ji te ba léegi ni ma élevé xale yi noonu laa ko élevé te loolu yombul de waaye dama leen di wax toujours nag ma ne nit xale war naa nangu ko élevé daal boo amul kilifa rek seytaane mën naa nekk sa kilifa te seytaane dafa xat bët de yàlla daf ñu ko wëttanikuloo inna seytaana lakum aduwwun fattaxisuuhu aduwwan seen noonu la jàpp leen ko muy seen noonu kon nag damay dégg sama bopp di dégg borom daara yëpp ñiy am yërmande ci xale yi bu baax a baax a baax sëriñ Ahmad Saxir boobu ko kee daf daan wax ne xale yii moytu leen leen daf daan wax ne moytu leen xale yi de ndax mu ne daara ji nit mën na fee deferoo mais nit mën na fee yàqoo de parce que xale yi bu fekkee da ngaa soxal ñoom loolu di leen def lu métti rek loolu mën na yàq nit bu baax a a baax man loolu tax ma leen di wax ne daara ji daaraay démocratie la xale bu ko ne nga looy jàmbat ñu def sa tur sànni ma ko sama volontaire ma gis ko daal da nekk daaraay démocratie daal wallaay loolu gars yëpp bu xam ne daw na moom la neex waaye soo nee mu ñëw jàmbat ko fii te kenn ku ko mën a te noonu lañ bëgg de may leen ji amul lu ñuy nëbb lépp ñu ngi fexe bu feeñ kon nag wax dëgg yàlla kontaan na trop mu kontaan de yal nañu yàlla boole dimbali ñun ñëpp ala kulli àll bi nañ tey yal na yàlla boole may ñu gërëmal yàlla ñun ñëpp nag. may ko ñuy way jur may ko ñëpp jurit way jugaanu mi lay ak bag daal di ko woon foofu Aliou kon ñëpp dañu ñëw wax wa salaam. li ñu def rek bu nekk nii mooy ñoom Moussa Abdoulaye Ndiaye tamit mu jàppale ñu ay aaya mu daal di ko tëjee dëggatee ko ci bàyyi bu ko waxee rek ay fan mu fi aaj ay aaj mu la waroon egg si fii waaye mu ngi doon egg si fii nga xam moo leen mais tey jii comme loolu métti

yan ak jotaayu mel nii bu ñu nekk am na ñaar ñoo xam ne ñu ngi si yoon bi keneen bu ngeen di moroom tey su bu ñu la fee jógee dem moroom ko ngir dem defi lii nga xam ne Abdoulaye Diallo Mbengue mooy na keneen dina fi jógee moom it dem fii incha allah yàlla leen ñoom it ñu si ndam lu métti lu am laa indi loolu kon ñu sant yàlla incha allah bu waxee ñëpp tam ñu préparé terme yooya lii dafa nekk loo xam ne deexal la pour jël suñu diggante ak yàlla bépp doomi Gambia génn réew mi dem compétition koo xam yàlla may na la fa ndam ndax yàlla mooy maye ndam yàlla may na la fa ndam yàlla may la fa ndam sooy ñëw dina xam ne kii dafa génn lu dafa génnoon ci biir Gambia ko yëngoon mooy jogante ci alxuraan karim incha allah loolu ndaw yu takk suñu benn sëriñ daal daf ñu daan wax ne maanaam ku la defal lu baax même bu dee ngir yàlla la maanaam mu yëg ne defal na lu baax moom dara nekk dara moo tax dama am suñu benn mag boo xam ne bëgguma tuddul nag waaye ku sës ñu ne ala kulli taxawaay bi daara ji yaakaar naa ñëpp xam nañ ko daal ñu koy ñaanal di ñaanal ay rakkam ala kulli di gërëm tam comme ni ko Nadir waxee Euh, compagnie Diawéne wax dëgg yàlla xam nañ seen taxawaay ci daara ji daal ci lislaam rek ci daara yi ci lislaam seen taxawaay ci lislaam ñu leen di ñaanal yokku loolu compagnie Kim Sel tam ñu leen di a a baax gis nañ condition yi daw taxawal ci réew mi te yu mel noonu lu am loolu lañ doon dabaata rek ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal gërëmante yàlla waaw dañu dégloo léegi si Abdoulaye bi ñu ñëw jàng ñu dégloo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم هل يراكم من أحد ثم عفى الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم التكبير Yeah. ñu faat et sant nañ ñi nga xam ne ñoo nekk si média bi xaaral ñu ngi fi Star FM tam ñu ngi fi ñu Sénégal ñu ñëwoon ak ñun Paradise ñu ngi fi. Nema Nasib TV. ñu si bii tam ñu ñu ñëwoon ak ñun si ayam moom bi. Nema Nasib TV. Nema waaw Nema Nasib TV. ñu ngi ànd ak ñu si détail macha allah ñu bëri sama ay ndax lii lu am solo la li nga xam ne mooy taaru lislaam ngeen ñu jël ko wane ko si àdduna bi loolu moom jihaad bu rëy rëy rëy la daal suñu ñaan yàlla may ñu ne seen projet yi yàlla jël ñu nekk ay télé télé yi ñu ne yàlla may la télé bare bare bare bare ba wuleeri ma ba wuleeri ma kon si jërë ngeen jëf